وغدوت أربح مستر أو بائع أنت الذي بالله حق جهاده من قبل جاهد كل قتل بائع أنت الذي بالله حق جهاده من قبل جاهد كل قتل هادع وأنت الذي حزت وكنت على رياض المنس أنعم رائع نسألك من مرب الناس khaira di khaira خير dala dala ci doon rek sa ni ko fa indi loon ko lem boo xam la lemu safar boo xam ne ci safar gi lañ ko jël indil ko euh, euh, bis bi ak sunu addiya ndax bul fàtte ne dañoo yor ferme agricole intégré Serigne Thierno Seck Sadaga ñu ñëw siyaare si ko laajaale ko ndigal wanaale ko liggéey bi nga xam ne fi lañ toll ci tool yi ci ferme bi ak gaynde yi nga xam ne dañ koo tegoon ci loxo mu dénkaat ñu ko ñu téye ko ñu yore ko euh, di ko laaj ndigal que barab bi ja pare na euh, def nañ ci liñ ci war def ci yëpp di ko wax ne ko bëgg nañ bu ñu joxee ndigal ñu ubbi ko mu ne joxe na ndigal nañ ko ubbi ci màggal gi Euh, taalibe gi yëpp man dafa dem seeti ko euh, loolu la ñu sëriñ bi wax yaakaar naa mi ci image yi mu joxe ndigal nañ ko ubbi taalibe yi dem seeti ko euh, tey ngeen góor góorgóorlu ci. dangeen ci daje ngërëmal sëñ Tuubaa ndax dafa fekk loolu di loo xam ne dëkk bi daf ko soxla da nga ci daje ngërëmal sëñ Tuubaa te na nga xam ne fu ma tollu maa ngi lay ñaanal ndax xam naa ne liggéey sëñ Tuubaa rek la ñu wax alhamdulilah rabbil alamin bi mu ñu waxee lool dañ koy sant si bu ndax bul fàtte ne yàggul. dama accidenté woon accident boo xam ne quatrième étage laa jóge woon bi ma ex bi mu ko yégee bi mu xëyee dafa ma woo ci suba ne ma dara du la ci dal boo xëyee suba na nga xam ne da nga doxi say soxla soox sax doo ko ci def ndax da ngay liggéeyal sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moo la bëggal boppam awal la boppam ne ma da ngay liggéeyal sëñ Tuubaa liggéey bi ngay liggéeyal sëñ Tuubaa mi ngi suñu kanam booba xalaatuma woon ne war na ma ubbi ferme Touba mais ci loolu ci la ferme bi ñëwee ñu ubbi ko tuubaa ba egsi tey ferme bi ñu indi am nañ rab yëpp am na fa am nañu bukki jësit mbaam àll saaw ak yeneen rab yu bari ma nga fa ay goloog yeneen ak gaynde yi nga xam ne moom moo ko tuddee tudde Matlabul ni ñu téye ko ci ndigalam loolu dañ ciy sant gërëm ci ñaanal yàlla yàgg suñu kanam di wax ne taalibe yi ñu xam ne barab ba seen baraba ni ko sëñ bi waxee ne barabu barabu murid yëpp la nañ leen ko ubbil ñu gis ko nañ leen ko ubbil ñu gis ko jox ñu ci ndigal kon nag fas nañ yéene ubbi ci màggal gi yëpp nit ñi gis ko continuer ko it après màggal gi kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ne Touba moom bu fekkee am na inondation li ñu war ñun murid yi ñun ñëpp ñu engagé wu bañ cee xaar dara te defandoo ko daanaka du ma mën a sori ci loolu ndax dama comme ferme bi moom fi indi woon bëgguma cee dugal leneen